ce qui doit lui permettre de lancer en fin février une vaste campagne de vaccination pour les personnes en risque. Les Sénégalais sont prêts à être vaccinés Pour l'affaire de Sonko, cinq organisations non gouvernementales ont exprimé jeudi leurs préoccupations relatives à un climat de tension régnant au Sénégal depuis l'éclatement d'une affaire de viol et de menaces de mort dans lesquelles le leader Ousmane Sonko a été cité. Toujours sur l'affaire Penchon a boo bëggee ay rek maa la ko ëppale man sama téléphone fu ma neex lay dem ndeyam laa la wax maay filmé ba ca yax fii ci circulation bi yëpp laay filmé ku fi taxaw ma filmé la yow laay filmé ba xam loo ma mënal awaña qu'est-ce que tu kan yow pankoo sax maa yow département de Pikine yow pankoo sax ngay wax man maa moom sama bopp su ma neexee filmé sama film sama oto ngi nii sa oto ngi noonu yéegal yaay sama jarbaat waaye di nga dégg li nga dinaa ko wax de dangaa sama sa morom voté ku bàyyiwul sa baay doo bàyyi sa baay doo bàyyi keneen

Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de votre édition. Merci beaucoup et à très bientôt.